m'excuser surtout auprès de mes cohabitants. Nous habitons Sacré-Cœur depuis 1981-82. Et j'ai fait le tour de chaque maison pour voir chaque chèque de famille et chaque membre de famille pour présenter nos excuses. Parce que ma maison est un siège politique nous n'aurions pas souhaité leur imposer cette douloureuse situation. D'autant plus que certaines maisons n'ont plus d'électricité, d'autant plus que certains habitants ont eu des dommages matériels importants puisque un véhicule a été caillassé. Donc je voudrais ici publiquement présenter à chacune et à chacun de mes cohabitants et de la cité mes excuses et dire mon regret de leur imposer cette situation et véritablement demander pardon parce que c'est ça qui est important parce que nous n'aurions jamais pensé leur imposer pareille situation surtout au moment où cela s'est passé ce qui s'est passé vous me direz que c'est politicien, c'est politique. Mais ce qui s'est passé est criminel. C'est criminel. Et je pèse mes mots. Parce que dans cette maison, même si elle est un siège, il y a des personnes qui passent la nuit, qui dorment. Au moment des faits, ces personnes dormaient et on a incendié leur habitation. Qu'est-ce qui aurait pu se passer s'il n'avait pas fait preuve de diligence pour essayer de limiter les dégâts Nous aurions connu encore une fois des dégâts humains, puisque nous aurions enregistré des morts. On rend grâce à Dieu que, heureusement, nous n'avons enregistré aucun décès ni aucun blessé matériel humain. Mais je voudrais encore une fois réitérer mes excuses et Massaou, tous les voisins, parce que c'est ainsi qu'on a vécu. Depuis plus de 40 ans, nous nous connaissons, nos enfants se connaissent. Nous avons toujours vécu dans la quiétude et c'est parce qu'il y a cette situation que ses voisins n'ont pas pu dormir, n'ont pas pu aller à la mosquée calmement, n'ont pas pu faire leur prière calmement, puisque les événements se sont produits à 4 heures et quelques du matin, au moment où les musulmans se préparaient à aller à la mosquée ou se lever pour leur prière de Fajr et de Souk. C'est triste, c'est dommage que l'on puisse assister encore une fois à de pénible spectacle. En tout cas, je suis très peiné par ce que j'ai vu, par euh, ce que C'est la raison pour laquelle je voudrais en tout cas inviter les uns et les autres à plus de responsabilité, à plus de retenue. Cette campagne électorale, elle est spéciale. C'est la première fois que nous vivons une des élections législative anticipée dans ces conditions, ce qui nous est imposé est unique. C'est unique aussi. On nous invite, on nous impose de faire une élection dans des conditions comme celle-ci. C'est la raison pour laquelle la responsabilité première est celle de l'État. C'est l'État qui est interpellé dans tous ses compartiments pour faire en sorte que les gens puissent aller aux élections dans la quiétude et dans la sérénité. Cet État-là et les autorités qui l'incarnent devront prendre leurs responsabilités. Nous les interpellons. Ils doivent assumer, ils doivent s'assumer et ne pas laisser faire. Le laisser faire, c'est du matin. Le laisser faire, c'est inciter les uns et les autres à se venger. Certainement, peut-être que c'est ça leur calcul. Ils souhaiteraient que les gens ne puissent pas aller aux élections dans des conditions de sérénité et de sécurité. En tout cas, j'y invite chaque acteur. Ce qui s'est passé ici est énorme, grave, dangereux et c'est criminel. Et c'est criminel. Et c'est criminel. J'espère que les autorités étatiques auprès de qui nous allons nous tourner, puisque nous allons faire toutes les procédures juridiques et judiciaires normales, donc les autorités étatiques joueront leur rôle. Parce que nous ne pouvons pas laisser passer cette situation. Ce n'est pas possible. Une plainte sera déposée et nous allons demander à l'État de s'assumer. Ça, je veux que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Maintenant, quid des circonstances et des causes Je n'ai aucun commentaire à faire puisque je n'y étais pas. Mais j'invite les uns et les autres à faire preuve de responsabilité et de sérénité. Une élection, c'est un débat d'idées, c'est des échanges. La violence n'y a, a pas sa place.

xamnañu nañu kañ lañ ci xamnañu ku nekk ci yow xamnañu li nga def ay caméra fi ne bi ñuy egseeg ba ñuy précurseurs yi jëkk a ñëw ak dellu ak ñi ñëw ba gaa yi commencé tout est filmé tout est filmé parce que euh, réew mi moo demee noonu léegi ku nekk da nga war fagarlu ensuite ñu dégg kilifa gu mag wax li mu wax démb

li fi xew amna signature li fi xew ken du lam la laamee ci kan moko def ken du lam ci ñan ñoko def parce que on a toutes les images on a tout ñi doon dem ak ñiy dellu seeg ñi déyanteeg précurseurs yépp tout est enregistré donc ñan ñoko akam def ak kan moko ko def xëy na nañ ñu mais ni soy def da ngay ñëw def ko ci lieu d'habitation moo tax ma am kersa gu rëy man am métit bu rëy parce que fii ñu ngi fi dëkk depuis plus de quarante ans kër yi yépp ñoo màggandoo seen doom yeeg ñi fi ne ñoo màggandoo dañu xamante depuis quarante ans histoire musul am suñu diggante donc moo tax ma dem baalu leen jéggalu leen parce que su kër gi nekkul woon siège li ñu dund duñ ko dund ñoom ci ñu yàq seen jàmm yàq seen waajtaayu julli fajar ba am na waa kër Masek Ndiaye parce que ñun ñëpp xamante ne ah, waa kër Ousmane Masek Ndiaye oto bi ñu toj waa këram la gorom moom moom oto bi oto baa nga fële oto bi nekk fële lu mu jotee kër gi ñu dem fekk oto bi fa mu ne ñu toj ko donc moo tax ma dem ci kër gu ne di ko defaat publiquement di baalu di jéggalu di torox parce que loolu moo li war dëkkandoo dafa am àq dëkkandoo da nga koy ameel àq dem naa ba kër lamin lum pour baalu parce que bi ñuy def li ñuy def ñoom quatre heures du matin mag ñëpp yeewu nañu mag ñi ñiy tëdd jigéen ñaa ngi tëdd ak xale yi donc jëfin bi moo rafetu jëfin bi moo ñaaw c'est même lâche et c'est criminel et je pèse bien mes mots c'est lâche et c'est criminel parce que Mare d'Italie, nous yi te tëddoon fille, suñu suñu nan def ñi nañu nañu ba donc c'est criminel et c'est lâche parce que tu les ci vidéo yi niñ doon sànnee sax nga Tu ne Si la suñu ñemewoon mais taxaw fële di sànni ay euh, lacrymogène ki ay ay cocktail molotov ki yooyu du yëfu gor du yëfu gor dama ni politique légui ñu bari xamé tuñ ci seen bop wax ju ñaaw def lu ñaaw jëf ju ñaaw c'est-à-dire ce n'est plus un problème de liberté c'est un problème de licence c'est-à-dire ku neex lu la neex wax nu la neex waxe ko parce que dara du la ci fekk li mu nar jur mooy sama maas gi nga xam ne bàyyi woon nañu xeex dellu si nag di xeex parce que nag dama ne gars yi yenn yi ñëpp ko mën si nous on a ñu bàyyi yenn yi nañ ñu bàyyi ñu toog fa ñu toog te bañ ñoo yëngal te bañ ñoo boole ci yooyu parce que am na lu kenn dul nangu nag lii ñu def yomb na parce que ku nekk ci ñoom am nga kër ku nekk ci ñoom am nga kër ku nek ci ñom am nga ko te ku nek ci ñom xam nañ fa nga dëkk buñ may wax lo moi cette affaire vous m'avez vu j'ai pris beaucoup de recul parce que dama ni li war moy nañu def débat bu serein débat ou d'idée débat de projet ku ci am sa dooleeg sa wax ju ñaaw nga téye et les sénégalais tranchent mais li rafetul jekkul motax ma ngi toroxlu ma ngi jéggalu di baalu samay dëkkandoo yëpp mais di baalu quartier bi yëpp fi nga dëkk 40 ans kenn mësu leen atte kenn mësu jàppale si su fi lii amee dafa ñaaw donc maa ngi baalu ñëpp maa ngi jéggalu di jéggalu ba ci waa kër Masek Ndiaye yi nga xam ne oto ba nekk fële ci mbedd male lu mu jotee kër gi ñu fekk bopp foofu toj donc euh, nañu delloo si xel yi nañu delloo si xol yi il est vrai que nous allons nous daañu organiser élection yi ci conditions particulières defe naa woon bi président Diomaye wax ci njabootam la waroon jëkk a doore su ci doore won parce que soy fagarlu wala ngay faagaagal da ngay wax sa njabot sooy wax njabootu kenen ku nekk ci ñu nit la ko wax mu war ko moo war ku nekk ci ñu wax suñu njaboot ni élection débat la élection du jaay doole du jaay xadar sa moroomu góor soo koy défier da ngay dem défier ko les yeux dans les yeux ñun loolu la xam mais doo ñëw def des trucs aussi lâche. yoo xam ni mënoon na jur lu ne man dama tiit depuis biñ ñu ma ko dama ma ni mbaa kenn deewu ci mbaa kenn gaañu ci loolu laa jëkk ko xool deuxièmement voisinage bi amatuñu courant amatuñu courant ñi seen oto yi yàqu na xam nga yooyu je sais pas qu'est-ce qu'on veut en tout cas maa ngi baalu ñëpp ñi dëkk ci quartier bi maa ngi baalu ñëpp ñi nga xam ne fii lañu nekk ci koñ bi koñ bi ak quartier bi di jéggaluwaat di baalu di wax ni lii fi am nag duñ ko bàyyee noonu parce que kër gi niñ ko defaree ñi fi ñëw attaqué ko ñépp la ñu oto yi egseeg ñaata oto la ñoo nit ñi ak ñi làqatu fi parce que li ñu xamul mooy quartier bi benn la ñun filmé nañu mais kër yëpp filmé donc ñi gaara woon ci ruq beek ñiy làqatoog parce que quatorze personnes yi doon sànni du ñooñu rek mat nañu trente et personnes ñepp pas nous filmer ku nekk ñu ngi yor sa visage parce que ñun non pas nous organiser dans ci quartier donc euh, duñ ko bayé non maintenant dañu xol état bi lu muy def parce que dégg na ñu ni élection campagne licence la période de licence au lieu que mu donne période de liberté période de licence c'est-à-dire ku nekk lu la neex def dara du ah, man danaa interpeller état à titre personnel parce que kër gi sama bosa ku fi man civilement et pénalement responsable parce que sama suis la ñu ñenn ñi juruma len mais ma len dëkkal donc man sam je maay jëkk a porter plainte danaa porter plainte danaa interpeller état bi danaa interpeller ñëpp parce que il faut que li dakk fi premier jour campagne là wu lii waratul am feneen moo tax ñi sama ginnaaw it dama leen di woo ni fayaloowuñu kenn dem leen defi seen campagne dem leen wax ak nit ñi loolu moo am solo mais man nag li ma war def moom maa si sama kër la sama alal la man lima ma ci war def de na ko def donc kooku j'interpelle l'État ce sera pas sans suite parce que le fait am c'est criminel c'est lâche et donc

Ah, boné.

amaana dinañ mën a am piste ni euh, ñi nga xam ne nag euh, ñoom la doon waxal di leen euh, sant di leen gërëm bu baax a baax ci seen teewaay jox leen rendez-vous ci beneen jataay ndax fii ni xalifa moom moo daal di jël kàddu ci li nga xam ne nag moom mooy déclaration de presse kese la wax ndax dañoo jàppoon ni conférence de presse la te ñëpp ñi nga xam ne nag ñoom lañ annoncé woon ni ñoo war a ñëw jël kàddu bi gisuñu leen motax euh, ñu japp ni xeyna fi ba ci ay fan tam dinañ mëna am sen euh, tête de euh, coalition yi wala tête de liste mëna genn addu ci li di len sant di len gërëm bu baax baax di len jox rendez-vous prochainement.